الحق المبين لغار ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق ما كان لي بكرم لمن غزاتي جالب النيران أو جالب العارين والخسران لم ينحني ضرر النار دنيا واقتسني الباقي بخير ثنيا ملكني ما لم يبيع أني waqaadali baqaa'u bil manni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen safoo di suivre seen rajo seen télévision Bichri TV mu ngi leen siyaar bu baax di leen nuyu comme ni nga xamee tey jii di màggal Daaru Xudoos di bis bi nga xam ne bis bi la Sëñ Tuubaa ñëw dëkkaleeg borom ba faw fii si Touba di bis bi nga xam ne Sëñ Moustapha wane na si njàmbaarte goo xam ne yëm na ñëpp bis bii nga xam ne suñ Tuubaa waxoon ne képp koo xam ne farang biir tubaa suñu borom jéggal la see bàkkaar ba daan na wax naan képp koo xam ne nii da ngaa bis bu guddi na nga jóg dox jëm boori Tuubaa di teg malaaka yoo xam ne ni dañ lay sàbbal suñu borom di la jéggal lépp kon tey lépp ñu teew fii tubaa ndax màggal guddi gi nga xam ne suñ Tuubaa am fii la ñëw ñibbi si Tuubaa dëkkaale waram bu faw kon ni ñu ko xamee ak ni ko gisee ñu ñëw fii si biir jumaa ji Tuubaa ji nga xam ne fii lépp xewee fii la mbir mi yëpp nekk di guddi goo xam ne guddi gu barkeel ndax mag ñi dañuy far di wax ne sëñ Tuubaa daan na wax ne ni koo xam ne dëkk saalum saalum na sax wala koo xam ne du ab murit jugee ab dëkk bu mën a nekk jaar Tuubaa ne daa guddi naa fanaan ba Tuubaa sax yërmande ji dana ko yóbbaale ba ci borom ko koy baakaaram kon jar na bépp murit ak foo mën a nekk nga bàyyi sa yitte bàyyi sa soxla yëpp ñoo fanaan ci Touba ndax guddi gënu ko màgg bis gënu ko màgg ndax dëkk bi nga xam ne Sëñ Touba moom la gën a bëgg te xam ngeen ne bi ko suñu borom wàccee natt bi bi mu wàccee liggéey rek la fi ñëwaat ndax natt goo xam ne tegal suñu borom tegoon na ko nga xam ne bokkoon na si natt yi Touba moom dafa teg sa tànk ba ba nga fi bawoo kon bu suñu borom dogalee si Moustapha def jàmbaarte ak yitte goo xam ne indi ko fii Touba ak jënd ko fi kon ñëpp amee nañ gërëm ak njukkal ak Sëñ Moor Moustapha ñi nga xamee ko tey bis bi ni am na tey képp koo xam ne nii mbir mi Sëñ Tuubaa suñu bëgg rek waroon naa fekk fii nga fanaan fi ndax lan tey jii la Sëñ Tuubaa suñu borom lépp yi nga xamante liggéeyoo na ko tey biir ma bis bii kon ni ko gisee di guddi goo xam ne guddi gu barkeel la kon bu ko defee ni ngi koy bis gis waa ba léegi ñu ànd ak yéen waa Bichri TV di leen wan image yi nga xam ne tey ñu am kër Sëñ Mbàkke Soxna Lo kër Sëñ Seex Gaynde Fatma ak kër Sëñ Mbàkke na fépp foo xam ne nii njabootu sëñ Mourou Moustapha am fa rek dem nañ fa wan leen liggéey bi kon du ñuy ànd ak yéen bi ci biir barab bi dañu si mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni nga ko ànd ak si yéen boobu léegi ci màggalu Daaru Xudoos bi tey jii ñu ngi ni si biir jumaa ci diggante barabu sëñ mag bi ak sëñ sëñ mënu si faa comme ni nga xamee naa sëñ Tuubaa digganteem ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dara dox si mooy waral heure boo génnee barabu sëñ Tuubaa rek dugg barabu sëñ mënu si faa te kéemtaan bu réeré see xew ndax sëñ Tuubaa daan na wax ne képp koo xam ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amee na la bor demal si Mor Moustapha mu fay la te nekk tey dafa méngóog comme barab rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñaari jàmbaar rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa ñu tëdd mu sina Abubakar ak sina Omar fii nag boo fi ñëwee di nga fekk si Sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma di jàmbaari Sëriñ Tuubaa ji ak Sëriñ Mbàkke Madina daal séq seen waajur bi nekk ci barab bii kon ni nga xamee tey di màggal Daaru Xudoos te Sëriñ Tuubaa wax ci wax yi yéeme jooju boobu ba ñu ngi ànd ak si ci reportage bi nga ne waa bis ñu leen koy defal tey jii ku ñëw si jumaa ji xool nit ñi ni xool nit ñi ni si barab Sëriñ Tuubaa di génn seen war daw war naa fàttali bis bi sëñ Mor Moustapha doon jëlee sëñ mag bi Touba da koy indi doon jëlee sëñ mag bi njaareem indi ko di bis bu màgg boo xam ne ni sëñ Mor Moustapha wane na si jàmbaarte goo xam ne nii duñ dañ mukk di ko wax ndax ku mu nekkoon ak wala keneen ku mu nekkoon boo moytul loolu du mën a antu te bokkoon na si boobu sëñ Touba yi mooy heure bu fi jógee dañ koy indi fii si Touba denc ko fi ndax wa kullu ma xadama ni aw saara fan na ji wax fii la aw saara tey loolu bu mënee am tey grâce à sëñ Mor Moustapha kon bépp julit bépp war naa sant sëñ Mourou Moustapha lii mu ñu defal ndax ni ñu koy waxee ne sëñ Tuubaa bu nekkoon ñëw woon Touba kon Touba ak yeneen dëkk yi sëñ Tuubaa jaaroon rek ñooy yem dañu fay jaare ndax sëñ Tuubaa jaaroon na fi comme comme que sëñ Moustapha def na njàmbaar indi ko si dëkkam bii kon ñun war nañoo góorgóorlu sant sëñ Mourou Moustapha di bis la boo xam ne nii maam ngën li ci nekk kenn munu ko làmm kenn mënu ko xam ndax ku fanaan tey say yaram araam na sawara loolu bis bi lay am kon ñu war nañu góorgóorlu bu baax te xam ne sëñ Mourou Moustapha daan wax ne bu musaan toog naan sëñ Tuubaa daa am mbañ daa am nangam daa am nangam daa man Mourou Moustapha de am njub moo ma doy te ku ne xam na ne ab taaw daa métti ya taaw boo xam ne daa laa ay seex yu mel ne maam Thierno Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall ñooñu ñëpp bu dee sëñ Tuubaa bàyyee kon ñu ñu séq loolu nga xam ne day diis lool nga xam ne kon day métti loolu nga yëf mel noonu waaye si ngorom jom fulla ak fayda ak taal bi nga sëñ Tuubaa yore woon taxoon na daa jël. lépp loo xam ne nii mooy njuréel te ko fee jënd ko ak taalibe ndax ku ne xam ne ba suñu tuwaari woo suñu ma roqee bu so woo sëñ Moustapha moom ak sëñ Fallou ak sëñ Massamba dane du ma bàyyi kenn kon sëñ Moustapha ak sëñ Fallou xam ne wax ji ñoo ko moom mu ne du ma nijaay kenn sëñ moo roqee bu so jël wàllam mu ne du ma mag kenn sëñ Massamba jël wàllam kon ñu xam ne fii li fi am mooy ak taalibe kon sëñ Moustapha jaayee na juréelam jëndee ko taalibe kon tey bu amee lu mel nii tey di ko màggal war nañoo góorgóorlu sant sëñ Touba waaye nag war nañoo sant sëñ sa Moustapha ndax kat moo jëlee sëñ Touba njaareem indi ko Touba moo jëlee raayam njaareem indi ko woo moom jumaa ji yu taxaw du mën a am ndax dañuy wax ne lépp loo gis ak liggéey lu mu dëgër dëgër dëgër bu fondation baaxul rek risque lu taxaw te sëñ Mourou Moustapha moo fondement yoon bi ndax bu sëñ Touba di ay naa la fi bàyyi woon kon sëñ Touba kon yoonu murid lépp lu am tey war nañ ko sant sëñ Mourou Moustapha ndax moo ko taxawu tey ba lépp mën a am kon ñu war nañoo góorgóorlu sant ko delloo ko njugal tey nag da koo def si aw ndigal ndax bis bi nekkul rek lu sabab waaye rek sëñ Moustapha da kaa def ci ndigal dana woon sëñ Tuubaa dana woon bis bi may dajee de samaa borom dëkk ak moom ba faw bis boobu kat mooy sama mbégte man ku béggul man sëñ Tuubaa man bég naa ci kon bis bi bisu mbégte waaw bisu mbégte la kon ñu sant sëñ Tuubaa baax a baax a baax waaye sant sëñ Moustapha kon bu ko defee ñu ñu sant mbooloo bi sandir waa nga xamante ne ànd na ñoom soo ba léegi démb ba léegi ñu nekk ci bis bi di wax ne guddi gi day wëy ñu koy màggal bu kon dañuy jógee fii day ànd ak yeneen barab kon waa Bichri TV bi ñu ne sant di leen gërëm wasalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf bisil baqaai anta suluke ñu taxaw ak lenn si mburu yi ñu wax seen xalaat si bis bi kon sëñ bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. di leen di ziare bu baax. di leen jaajëfal seen liggéey di ko rafet bu baax a baax a di jaajëfal bu baax a baax. sëñ Cheikh Modou Moustapha mi nga xam ne bi sëñ bi wàccee liggéey moo ko indi fii ci jàmm ak salaam te tubaab yi amul ci benn yoon di koy jaajëfal ci wax ak loolu di rafetlu bés bi di yàlla di ñaanal mbokk jullit yëpp yal na leen yàlla defal xéewal ci bés bi Diaw Xewël yéen ñëpp ak yéen ñi liggéey ci rajo yëpp. Euh, maa ngi xanaa sant Sëriñ Tuubaa baax a baax rek euh, ndax man màggal gi ñëw naa fanweeri at ak juróom-ñeent. Euh, waaye yoon wu ñëw rek day gën a xumb di gën a màgg. juróom Sëriñ Tuubaa nag moo mel noonu xanaa maa ngi jógee Tuubaa Ndiène kese bi sama Diagne maa ngi sant bu baax di ñaan tam xewël gi gën a yokk baax a baax rek. man màggal gi li ma ca bari na. ndax sëriñ bi dana bu gan ñi di na ngeen génn néeg yi wàcce lal yi jox leen te la ndigalu sëriñ bi rek moo nu fi tax a ñëw ndax man ja Ndakaar laa nekkoon waaye damaa toxuma ci sama kër Dakar di ci Touba di fas yéene li sëñ Touba di wax lépp ma li sëñ Touba bàyyi fi lépp ma di ko siyaare ba ba ba ma dem ah, bëgg sëñ Touba nag yemale wu ma koog dugub moom rek laa bëgg barke sëriñ Touba moom rek laa bëgg. mboolem ku dikk ci màggal gi yal na nga ñibbi ak jàmm ci jàmm fekk fa jàmm ci dara ji sëñ Touba. tey kii noo ko gisee tey màggalu sëñ Mouhamadou Moustapha xam nga tey bis bii rek sëñ Touba jigéen ñi jaar daa xool bisu tey loo mën a xanaa man mooy taalibu sëriñ Cheikh Mbacke rek sama bu sëriñ bee ma bàyyi ca biti muy julli sëñ Cheikh am na mu sëñ Cheikh Mbacke moom mu nelawee la na door a jokk ci ñi fi ne waaye ñun sëñ Cheikh Mbacke la mu neex tàkk waa Daaru Xuddoos nan daan ba ne wax nan toogi booli sama borom kër bi toogi booli nu indi ko fii kon màggal gi rek mooy sunu màggal ñun noonu sant yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuubaa di sant sëñ Seex Mbàkke jumaa jo njaareem googee ba ñu def jàkka ji ca biir kër ga te ña doon yanu béton ba laa bokkoon di yanu ca béton yi dik bu nu toogee ba ngoon mu toog ca liyaan ba ca biir ji ba kër ga nu toog fa mu ñaanal nu lu dora yow ku jubbi ba ngoon man mbirum sëñ Touba moom dama koo bëgg lool. baax a mooy bés bi nga xam ne moom sëñ Touba gën a foog ci màggal bi ndax sëñ bi moom sëñ bi nga tax ñu màggalu tey moo moo jëkk a génn ci bi mu moom moo tax ji muy sëñ boo xam ne kenn la. waaw ñoom ñaan yàlla tax na ci barkeem ñun moom la dara ci di tukki boo xam ne lu ñu luñ ci bëgg daal nañ ko ci ñaanee suñ tubaa leen waaw suñ tubaa moom da koo fonkoon lool. waaw sant suñ tubaa rek yéen yëgu sant sant sant suñ tubaa baax a baax a baax a baax a baax ndax moom la lépp rek moom la ñu ngi baax a baax tey digal ñëpp ñu sant suñ tubaa bu ñëpp maa si suñ sant suñ tubaa rek réew lépp dana am sotti sant suñ baax rek waaw nañ koy doxe di ko waxee di ko xëyee di ko gontoo sant sëñ Tuubaa rek waaw loolu rek moo fi nekk sant sëñ Tuubaa baax a baax a baax waaw màggal gi wax dëgg yàlla moom ni ma ko gisee dugg nañ ci bismillaahi rahmaani rahiim génn ci alhamdulillaahi rabbil di ñaanal yàgg fi lool te wér ak yàlla bàyyi ba ci kanam yokku am ay fanam yokku xéewal yi ba léegi liggéey bi ñu ko sant yëpp ci kàttanam mu def ko jaam dëgg yàlla màggal gi moom ne taalibe yi moom jàmbaar lañ bu baax a baax. alhamdulilah sant bu baax ma wax dëgg yàlla. ah xanaa di sant rek sant yàlla di sant Serigne Touba Mbacke sëñ Cheikh Modou Moustapha Mbacke ak Gaynde Fatma suñu Serigne ba di ñaan rek ah yàlla def ay xéewal képp ku ñëw rek yàlla defal xéewal yu ne gaañ waaw di ñaan rek waaw ñëpp daal kontaan nañu. ñoo ngi ñaan rek ay xéewal sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg ak sëñ Maxtaarum Daaru Xudóos yàlla nañ fi yàgg njaboot sëñ Fàllu gépp waa kër sëñ Touba gépp bàyyuma kenn yàlla na fi ñëpp yàgg ci wér ñi jiitu yàlla leen yàlla yokki waaw. yokkute rek yokkute rek man daal li ma jàpp sama xol gëm ko sëñ Touba mooy diine mooy lislaam kuñ fii topp ku ne sëñ Touba dong nga tax moom rek moo fi sëriñ loolu laa gëm di ñaan yokkute saaw abadan barki borom Touba loolu rek laa yegg sama xol. Ah, ñu ngi sant Serigne Touba wër ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sant suñu ñaay waay bi ñu ngi sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla yokk leeram tasu ci barkeem di sant borom bés bi Cheikhul Khadim moom waral bés moom waral dem gi koy sant di xamal ni jaam ñi rek naan leen lépp Serigne Touba la ndax lépp dem bay ñëw di am sañ-sañ at fit ba am lu ñuy ba lu ñuy gërëm ndax lépp Serigne Touba moom la ñuy sant moom la ñuy màggal la ñuy gërëm di ñaan yàlla tasu ci barkeem lépp lu ñuy ut yàlla ñu ko may ci barke Serigne Touba ak Serigne Fall yàlla defal ñu jàmm ak télé beeg ñëpp. خير